auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam lu ñu koy faral di defee heure bu ñu génnee ci élection jàkkaarloo askan bi wax leen jàngat juñ ci am waaye it xool tolluwaayu réew mi mais surtout ñun ñi nekk ci opposition bi kenn ku ci ne ci ñun ban jàngat nga war a mën a am ngir ëllëg ak si biir ñu mën a am yeneen i performance looloo waraloon tey ndaje bi looloo waraloon it tey woote yi ngir ñu waxtaanee ko di ñaan yàlla ñu tàmbalee ko ci bismillahi rahmaani rahim jeexalee ko it ci alhamdulillahi rabbi alamin te it bépp kàddu gu fi yëkkati yàlla na doon kàddu gu gën ci askan bi ci li ma mën a jàngat ci résultat yi ñu am ci élection yi mooy waa nguur gi présenté nañ ay liste fépp ci réew mi amul fenn fu ñu forclos ci loolu it li ma ci yokkaat mooy soo xoolee bu baax seeni spécimenu bulletin dinga gis ñu bari ci ñoom yenn profession yu ñu def ak li ñuy exercer nekkul lu am donc ñoom waroon nañ bokkit it ci ñu ñu ci yenn localité yi seetlu nañ aussi ci yenn localité yu bari yoo xamante ni bu ñuy dem di déposer seeni liste ci yenn préfectures yi ak sous-préfectures yi def nañ ko fekk minuit passé na waaye comme li ñu faral di wax rek ñu yàlla xajamal cerewu kenn loolu c'était juste un constat yàlla dogal na tey au sorti des élections Benno Bokk Yaakaar nekk nañ am nañ une majorité opposition bi yàlla dimbale na la coalition Yewwi Askan bi mu nekk tey la deuxième force politique yàlla dimbale nañu ñun au sein de la grande coalition gëm sa bopp ñu am un score honorable li may woowee un score honorable mooy on ne s'y attendait même pas au niveau du département de Dakar ci fukki commune ak juróom-ñeent mooy ci dix-neuf communes nous étions présents que sur onze localités ci localité yooyu it yàlla dogal na soo additionné même résultat score bu ñu am ci département de Dakar yépp nous sommes arrivés troisième. Au sein de la région de Dakar, muy le département de Dakar, le département de Pikine, le département de Guédiawaye, le département de Rufisque et le nouveau département de Keur Massar, nous sommes arrivés troisième. moo waral ñu ne que la région de Dakar c'est le Sénégal en miniature le score bi am amit yeneen localité yu réew mi yoo xam ni suñ fa jëlul deuxième ñun ñoo fa jël troisième yeneen it ñoo xamante ni ñoo ko remporté amuñ lu dul sant askan bi président Bougane Gueye Dany dina ko defaat ni ñu ko defee avec tous les leaders de la coalition ngir gërëm fépp foo xamante ni am nañ fa lis muy liste bu jàll comme liste bu ñu rejeté ndaxte am nañ lu ëpp rejet sur l'étendue du territoire national ci loolu nag jàngat jima ci am mooy élection la woon yàlla dogal na dugg nañ ci ci bismillahi rahmaani rahim génn nañ ci ci alhamdulillahi rabbi alamin joxe naa suñu position bu ñu am au sein du département de Dakar comme au sein de la région de Dakar li ci des nag ñi ngi koy bàyyi ci loxo suñu borom subhanahu wa ndaxte soo calculer sur l'étendue du territoire nationale nous avons obtenu deux cent dix mille voix deux cent dix mille voix yooyu nag am na ay partis politique yoo xam ni au Sénégal ñi ngi fii depuis indépendance bi amuñu ko jegewuñ ko donc tey ñun li ñu am ñi ngi koy gërëmee suñu militants di ko gërëmee it suñuy sympathisants ci turu le président Bougane Gueye Dany képp koo xamante ni sympathisant nga wala militant nga dem nga élection xeex nga sonn nga ñafe nga ci ba score boo ci mënti am même su dee benn conseiller ngeen am un conseiller municipal ñu ngi leen di sant di leen gërëm tey di leen loolu jig leen ndaxte quoi que l'on puisse dire élection expérience la te ñun lii mooy suñu première expérience électorale. mën euh, waaw parce que xam nga tey <coughs> je ne vais pas parler même du Sénégal mais na ma ko yaatal à travers le monde ñëpp xam nañ ni nit mënatul taxaw rek ne man kese man maa gañe moo tax kenn waxatul mbirum parti politique mais dañ ko yaatal di wax ay mbirum coalition et tout sait que incha allah suñu fi yàlla bàyyee ba élection yi jàll le 31 juillet le premier er le président de l'Assemblée nationale Moustapha Niass dina jël retraite retraite bu muy jël nag na nekk une sortie honorable ndaxte souvent ñun aussi la nouvelle génération foog ñuy rafetal suñuy kaddu ndaxte ku dem ba nekkoo directeur de cabinet président Senghor ànd ak le président Abdou ànd ak le président Abdoulaye Wade tey am benn taxawaay bi ci wetu président Macky Sall ñi ngi ñaan xam-xam boobu mu am cet sorti honorable mooy ñu xool benn monument wala ñu xool bibliothèque bu mag wala ñu xool leneen loo xam ni dañ koy jël jagleel ko ko ndaxte nag il a servi son pays je ne ferai jamais partie des jeunes leaders politiques yuy xas mag yi fi jotoon jaar ndaxte ñoom ci seen xam-xam la ñuy root ñoom l'expérience bi ñu am dañ koy soxla mooy tey même suñu demee ba toog ba nekkatul président assemblée nationale dinañ soxla par exemple mu bind ay ouvrage foo xamante ni jot na fa jaar étant ministre étant directeur de cabinet du président de la république premier ministre la station primatoriale à l'assemblée nationale mu bindaat lu mel noonu dina jëriñ ndaw Sénégal yi waaye dina jëriñ ay ndaw ci Afrique te it di ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram nuñ koy ñaanalee le président Abdoulaye Wade je pense que je fais partie de ses plus proches collaborateurs su loolu amoon yaakaar naa sénégalais yi dinañ ko gis ci élection yi ñëpp gis nañ ni que la grande coalition gëm sa bopp taxawaay bu président Bougane Gueye Dany am ak ay militants ci réew mi mooy dëggu mooy ngor mais surtout jël un programme boo xamante ni daf ko jébbal sénégalais yi wax leen moom lii la ñu bëggal Sénégal ci biir coalition Gëm sa bopp loolu moo ñu waral ñu am tey score u deux cent dix mille voix ce débat nag comme lu ñuy wax politique moom comme comme jeu wu tennis la rek da dóor kii kële dóor kële waaye ñëpp xam nañ ni que moom bokkul ci mouvance présidentielle ñëpp xam nañ ni que moom il fait partie de l'opposition et je dirais même de l'opposition radicale te jii les paysages parce que ñu ngi bàyyi xel ci expression yu bees yi lu mel ne filtre ak liste parce que yooyu ñu ci bàyyi xel ñu ngi ci def analyse pour avenir politique parce que ñu nga xam ne ay liste parallèle parce que ëllëg seen parti daal vous savez avant ñu dem élection du ma tudd organe de presse boobu. mais gis nañ ni que le président de la république defoon na une sortie disant que képp koo xamante ni def nga liste parallèle dinaa la daq ci partie bi dina la dàq it ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar waaye tey ñenn ñi fippu dem defi ñoom seen liste parallèle yàlla dimbale leen ñu nekk ay maire je pense que dina am ci ñooñu beneen considération mais loolu aussi tout dépend de l'appréciation du président de la république moom mi nekk aussi président coalition Benno Bokk Yaakaar man li ma intéressé mooy ñun ñi nekk ci opposition bi ak comment faire ba yàlla dimbali ñu yéene gi ma am man ci candidat bi ma jiital yàlla dimbali ñu mën ko mottali. Sa Bopp ban xalaat nga ce que nous attendons du nouveau gouvernement mooy tey képp kuy ñëwaat nañuy bàyyi di tripatouiller la constitution ndaxte constitution ab kenn moomu ko yaayu kenn moomu ko dafa di loo xamante ni loolu moo la constitution mu jiitu sax darajawu président de la république ndaxte kuy gëstu ci réew nga bëgg ñëw même un investisseur war nga xool lan la ñu bind ci charte réew mi moo waral tey si j'étais à la place du président de la république dinañ gën a verrouiller la constitution de la république poste su premier ministre président de la république ba léegi ci ay prérogative am lañ moom mooy seet ku ko neex mu tànn ko waaye képp ku mu war a tànn yàlla na doon ku gën ci réew mi la taille du gouvernement si j'étais à la place du président de la république dina ko réduire ñun au sein de la grande coalition ñi ngi doon wax ne tey lu ñu doon proposer wala bés bu la président Bougane Gueye Dany excès ba jiite réew mi mooy ñun la taille du gouvernement dañu buggoon mu nekk dix-huit ministres ci loolu it dinañu mën a permettre ñu mën a économiser un tout petit ci suñu yenn ressources yi beneen bi it mooy yenn institution yi wax naa ko duma tàyyi di ci wax lu mel ni conseil économique social et environnemental lu mel ni haut conseil des collectivités territoriales lu mel ni la CDC lu mel ni aussi euh, yeneen commission yu bëri yoo xam ne am na ci réew mi te dañ fay teg rek lu ñu naan clientélisme politique ñu jël institution yooyu noonu dissoudre ko jël koppar googu noonu dugal ko ci lu mel ni mbirum santé wala jàppale ko ñu nekk ci mbirum agriculture bi mooy baykat yi loolu dina tax aussi réew mi gën a naat ndaxte comme on di quelque que soit notre appartenance en politique ñu bokk ci pouvoir bi ñu bokk ci opposition bi wala ñu bokk ci société civile bi lu ñu ëppal solo tey mooy Sénégal naat kenn warul ñaan Sénégal nekk ci fitna ndaxte réew mi su nekkee ci fitna yow mën nga mucc waaye doo xam sa ban mbokk moo ci des donc man position boobu noonu laay adopté position boobu aussi la ñaan Sénégal yàlla dañu dimbale réew mi doon réewu jàmm. vous savez euh, nekkuma man ci place am pour mën a wax su doon président de la république daf ko woolu tey moom ban position lay am euh, fan yee passé c'est vrai que defoon na une sortie pour dire que même suñ ko proposé woon le poste de premier ministre moom nekk na loo xamante ni euh, moom bëgg ko parce que tey loolu yëpp pour wane rek à nouveau que tey moom li ko intéressé mooy liggéeyal Sénégal mooy liggéeyal suñu réew man nag am naa ci suma xalaat personnel loo xamante ni man la engagé mooy na ma doon jàngat avec le peu d'expérience que j'ai le président Abdoulaye Wade heure bu ko yàlla dénkee woon muy jiite réew mi bi mu ñëwee dossier yi ñu ko njëkk tegal sur la table ne ko kat ñii da leen war a toroxal dafa leen ne mettez-moi ça de côté parce que li ma intéressé nekkatul léegi pour xeex ak ay doomu adama waaye xool nan lay liggéeyee suma réew ñëpp gis nañ ni que l'ouvrage que le président Abdou Diouf bi mu bind nee na Sénégal doon na am jafe-jafe comme par exemple lu ñuy wax fan yi muy hausse euh, des prix ci yenn denrées yi président Abdou Diouf da doon jël téléphone am woo la président Abdoulaye Wade amit loo xamante ni daf ci waxtaan ak moom pour kooku xelal ko donc tey si j'étais à la place du président de la République j'allais faire comme nous le président Abdou Diouf doon def mooy woo ñëpp autour d'un gouvernement d'union nationale si j'étais à la place du président de la République je répète et je réitère mes propos j'allais demander au président de la république tey su ma nekkoon ci place am wala mu nekkoon ci ñu koy xelal ngir mu woo ñëpp woote nag ne veut pas dire que soo wootee ñëpp dinañ la wuy si déedéet mais di nga woote ngir intérêt wu Sénégal ndaxte tey Coupe d'Afrique bi fi dugg ñëpp gis nañ ni que avec le match bi mu Sadio Mané bu mu raté penalty bi sénégalais yëpp découragé waaye gis nañ ni à la fin aussi penalty bi mu dugal dafa tax. waxuma la Sénégal mais adduna bi yëpp waxuma la mbirum unité de gis nañ jooyoo yi gis nañ xëm yi gis nañ crise ñëpp ànd doon benn te it loolu même si nous sommes de l'opposition le président Bougane moo ko njëkk wax bi mu taxawee ba nuyu le président Macky Sall mooy dañuy magnifier gest bu président Macky Sall def mooy woo ñëpp pour ñëpp nekk benn donc tey même su doon tey euh, kenn ku ci nekk am nga ci jàngat si j'étais je répète à nouveau si j'étais à la place du président de la République dinaa woo ku mel ni président Bougane dinaa woo ku mel ni le président Barthélémy Diaz dinaa woo ku mel ni le président Khalifa Sall dinaa woo ku mel ni le président Cheikh Alassane Sène dinaa woo ku mel ni le président Malick gaku ak yeneen acteur yëpp ne leen yéen kaay ñu waxtaan su dee liggéeyal seen réew moo leen tax a jóg ñëw leen ñu àndandoo joxanteel loxo su dee nag da opposé wu rek. dem leen ngeen opposé wu ndaxte Ablaye wadd da doon dugg ci gouvernement wu du juuf liggéey ba élection jege du démissionné day njëkk bind lettre de remerciement au président su ko bindee ba pare gërëm ko étant ministre d'État dans le gouvernement du président suy dugg da doon dugal ñu mel ni ñoom Aminata taal ñoom ñëpp dañ doon ñëw dugg sa Seck ñaata yoon la dugg et pourtant opposant la woon ba ba mu nekk ministre du commerce parce que tey loolu réew mi soxla nu gisee image yi ñëpp taxawoon doon benn joxante loxob ci aéroport loolu la réew mi soxla di continuer di gis tey président de la république invité déjeuner wala dîner opposition bi ñëpp ñëw toog tooñante kafante kaf foore waxante jàmm noonu it la président waree sol dàllam tey suba dem seeti nu mu seeti woon xalifa Sall même su ba sub naqar la mais tey su bànneex amaatee kër xalifa wala kër Barthélemy wala kër Bougane wala kër keneen que le président de la république aussi def lu mel noonu parce que su ko defee rek da lu rafet su ko defee rek day tax Sénégal ñun ñu amaat ci beneen jàngat ndaxte xam nga sur le plan international ce que les gens ne savent pas et d'ailleurs ce que j'invite d'ailleurs la nouvelle génération ñu koy éviter mooy faw ñu bàyyi waxante yu ñaaw ñi ci les réseaux sociaux j'invite la nouvelle génération muy sumay rakk muy sumay jarbaat ñoom ñëpp kenn ku ci ne ñu xoolaat seeni taxawaay ak kàddu yu ñu yëkkati ci réseau sociaux yi ñëpp gis nañ fan yi passé lu jotoon xaw au Maroc ñu gis ni ni que àdduna bi yëpp a ñëwoon mànkoo doon benn ñoom ñëpp jël benn kàddu ngir xale googu noonu amoon cinq nekkoon ci teen nekk fa fan ba yàlla def lu gën ñu koy ñaanalit yàlla na yeggale ndawam biir àjjanay firdawsi bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Maintenant, ces jeunes qui sont dans les réseaux sociaux, je ne voudrais pas être vulgaire, mais man, je les, je les appelle les ratés de la société. Parce que c'est des jeunes qui se réveillent à 13 heures, voire 14 heures. ñoom ndaye ak baay ñoo leen dëkkal te fekk am na ñu ci bëri lu ëpp 40 ans fi dëkkandoo bi la ñuy connecté woo suñ jógee Onda Fefte la ñuy ñaan à côté ñëw teg ataaya bi teg suukar gi toute la journée ku ñu gis mere la lu waral loolu parce que ñoom dañu naan tey lu leen dal ñoom ñoo ko teg seen bopp et pourtant ils pouvaient servir leur pays autrement ils avaient la possibilité tey tey nekk ay volontaires jóg xool par exemple dans les hôpitaux lu mel ni hôpital Dantec ñaata jirib ñoo fa nekk ñaata nit ñooy nekk dans les hôpitaux tey te mënuñ am cent francs pour mën a sax jënd seringue bu gën a ndaw te ñi ngi fii tey di dund tey souffrance boobu noonu tey ñooñu mënoon nañ nekk ay volontaires su ñëwee recenser ñooñu dem xool syndicats yi jéem a xool tuuti aussi les acteurs parce que l'État aussi ne peut pas tout faire en ce moment les gens pourront écrire ku mel ni tey le président Khalifa Sall ku mel ni tey le président Bougane Gueye Dany ku mel ni tey keneen ak keneen ne leen kat yéen en ce moment-là ñun demande bu ñu leen di ñaan mooy ñëw leen ngeen contribuer même ne serait-ce qu'une pièce symbolique pour xale boobu noonu tëdd ci hôpital wala mag boobu noonu tey amoon benn poche wala waroon dem defi sonde wala dem defi échographie keneen koo xamante ne waru ko mën a fayal boppam loolu tey la ñuy xaar ci réew mi loolu tey lañu ñu war a xaar sur la nouvelle génération loolu tey la ñu war a xaar tey ci ay jeunes yoo xamante ni pare nañ pour ëllëg ak si biir servir seen réew mais nekk ci internet bi di saaga nit ñi à longueur de journée loolu kenn rafetlu ko que ce soit nag ñi koy def. dañ koy def pour faire plaisir au pouvoir ou à l'opposition loolu nekk na loo xamante ni kenn rafet lu ko ci réew mi Sénégal gii ñoo ko bokk senegal gii réewu Cheikh Ahmed Tidiane la Sénégal gi réewu Mame Baye la senegal gii réewu sëriñ Touba Xaadimu Rasul la nit ñi mënuñ di yeewu fajar di dem ci jàkka yi di wazifa di jàng seeni salaatul fatiha seen jawratul kamal heure boo leen yeewoo jël ay kàddu yu ñaaw di ko teg seen der c'est méchant nu ko nit ñi bàyyi nañuy toog di xalaat lan mooy defar Sénégal nañuy xool lan mooy jëmbat suñu réew ba ëllëg ak si biir képp ci ñu gis naw Sénégal mais tey soo jëlee benn kàddu muy un sénégalais nga saaga même si su dee da nga saaga tey le président de la république mais ku koy capturer xamuloo béninois la xamuloo français la xamuloo chinois la lañ naan ah ñii kat seen réew conflit am na fa tey un grand euh, un grand entrepreneur wala mu nekk koo xamante ni tey dafa ñëwoon un investiteur pour ne damay investir ci réewu Sénégal kaddu yu ñaaw yooyu sax mën na tax mu ragal donc ndaw ñi maa ngi leen di invité waat à nouveau peut-être que waxee naa xol mais ñoom ñëpp maa ngi leen di ñaanaat à nouveau ñu seetaat kàddu yu ñuy wax parce que ñu ñuy saaga ñu ñuy wax ay kàddu yu ñaaw c'est des pères de famille c'est des mères de famille c'est des responsables donc ñu éviter lépp loo xamante ni nekk na loo xamante ni day ñaawal tey askan bi day ñaawal tey drapeau bu ñu bokk ak suñu symbole loolu yëpp daal vraiment maa ngi invité la jeunesse de notre pays ñu seetaat Karim Wade, ce que je peux dire, c'est qu'il a servi euh, le Sénégal. Il a été ministre d'État. Il est du Parti démocratique sénégalais. bokk na aussi ci la coalition Manko ñun ñoo bokk suñu grande opposition bi muy coalition gam sa bopp muy yeewi muy wallu donc yaakaar naa li ma ci mën a wax rek mooy euh, ñun opposition bi ñun réeróowuñ suñu biir ñun opposition bi réeroo wuñ à nouveau suñu biir donc souvent ñenn ñi seeni militant ñooy nekk fii di saaga nit ñi ñoom ñooy nekkit it di wax loo xamante ni maîtriser wuñ ko ndaxte ñëpp gis nañ ni que opposant yëpp suñu gisee wala ñu dajee à l'aéroport wala ñu daje aussi ci yeneen bërëb ñëpp ay joxante loxo ngir ànd nekk benn ngir yeneen te jàmm ndaxte Sénégal gi jàmm rek moo fi xaj Junior waaw remerciement bi dama bëggoon waaw ok ok ok ok. Euh, mhm. ñan. waaw loolu jeune ne suis pas la personne habilitée à parler ci loolu ndaxte coalition bi aussi ñun dañu am lu ñuy woowee la conférence des leaders cette conférence des leaders est dirigée par le président Bougane Gueye Dany bés buñ ci tollee dina waxtaan ak askan bi ndaxte ñun ñoo ko jox mandat ngir mu waxtaan nuñ ko ko joxee woon mu continuer di waxtaan ak waa yeewi muy continuer di waxtaan ak waa wàllu di continuer di waxtaan ak ñëpp ñoo xamante ne ay acteurs lañ bokk aussi ci opposition bi lépp luy dëgëral opposition bi président Bougane Gueye Dany suba ak ngoon guddeeg bëccëg mi ngi ciy dox waaye lépp lu koy fragiliser ñun yoon boobu doxuñ ci te bokkuñ ci. dañ yow askan moom la fa yóbbu man maa choisir couleur yi loolu moom amu ci benn responsabilité. à un moment donné dem na ba ne ma est-ce que waruñu changer couleur yi ak turu coalition bi ma ko déedéet ndaxte faw mu am lu ñu yóbbaale ci élection yi sénégalais yi dañu miin gëm sa bopp dañu miin logo bi dañu miin loxo beek yooyu yëpp tey pourquoi la coalition wallu ñoom ñu conserver couleuru PDS ak mboq bi donc loolu yëpp mooy wara ni que aussi tollu woon nañ fenn foo xamante ni euh, il a fallu ñu maintenir tulu coalition bi mais certainement dans les jours à venir la grande coalition dinañ ànd daje leader yëpp toog mu définir aussi ñun ñun fi ñu war a teg suñu tànk ngir ëllëg ak si biir waaye loolu yëpp daal encore une fois de plus da di bokk ci loo xamante ni day dooleel opposition wu Sénégal. Sénégal yi dañ jàpp ne lu tax euh, coalition ko Sonko Ousmane Sonko président Euh, nombre d'années yoo alors la pas du tout ñoom ñaar ay xarit lañ c'est des amis ñoom ñaar dafa am loo xamante ni ñoom ñoo ko bokk mooy ils ont un dénominateur en commun muy Bougane muy Sonko ils veulent tous servir le Sénégal amaat it leneen lu si bokkaat mooy ils ne veulent pas ils veulent servir le Sénégal et non se servir du Sénégal donc ñaar yooyu comme ñoom ñoo ko bokk ñi ngi déggante yàlla mi ngi dogal ñi ngi daje. ñi ngi waxtaan ah loolu encore une fois de plus daal li may invité sénégalais yi mooy nañu dalal seen xel parce que wax naa ko sànq ca cappaandaw ja président Bougane Gueye Dany rôlam tey mooy dooleel opposition bi rôlam tey mooy taxawaay bu la grande coalition war a am mooy ñun ñi ni tey rôle bu ñu war a jouer dodul ludul xool lan moo war a euh, jëmale opposition bi ci kanam et non di ko fragiliser

gis nga échange téléphonique rek mën nga ci porter nit plainte te sénégalais yi foog ñu ci bàyyi xel parce que man li ma waxtaan ak yow loolu man ak yow la concerné warul nekk loo xamante nit ki dañ koy jël di ko diffuser et quoi que l'on puisse dire aussi depuis quelque temps ñëpp gis nañ ay enregistrement yoo xamante ni souvent su amee les gens ont des logiciels ils ont la possibilité aussi de déformer de changer des propos ils ont la possibilité de changer de monter même des images donc loolu man mënuma ci sori mais li ma xam daal mooy ak lu mënti am li tax a jóg président Bougane Gueye Dany mooy liggéeyal Sénégal li tax a jóg président Bougane Gueye Dany mooy seet naka la Sénégal di jëmi kanam ma joxaat leen beneen exemple gis nga bu tabaski bi jegee daf ma woo ma ñëw mu ne ma dama lay yabal ci ñenn ñu nekk dans les hôpitaux soo ma fa demalee ñu noonu tëdd nga xool seeni mbokk ku ci nekk fan la mbokkam nekk nga yóbbul leen ko nga yóbbul leen ne leen kat lii mooy sama contribution kenn ku ci ne ci seeni xaru tabaski loolu ça m'a pris une journée quand je revenu ci même bureau bi laa ko fekk mu toog il avait les yeux rouges ma ñëw ne ko ah alhamdulilah li nga def ni da yàlla na la yàlla fay tontuwuma ba léegi ma ne ko mais pourtant yow laay waxal ne war nga ma mën a tontu de mu ne ma ndaxte lii nii ma def ni tey su ma yàlla dimbale woon dama ko bëggoon yaatal ci bépp malaat boo xamante ni tëdd nga ci hôpital te say mbokk tey amoon ci yow yaakaar donc jëmm ju mel noonu man ma bañ a toog def ci moom témoignage bañ a wax aussi jikkoom ak ni mu mel loolu mooy wane ni que man ab naafeq la ndaxte nag comme lu ñuy wax ci compagnonnage nit sooy ànd ak moom dil gis saa su nekk lu rafet ci moom nga koy seede soo gisee it lu ñaaw ci moom bul hésiter heure boo leen toogee nga mun ko ko wax donc loolu aussi vraiment je tenais à faire ce témoignage pour vous dire que nit la ku baax nit ku bëgg Sénégal nit ku bëgg njëriñ Sénégal nit ku am yéene ci Sénégal souvent nag yéene bi aussi xër la rek nu ñenn nañu aussi xëree ci moom il fallait le voir gis nga veyu élection locale yi élection locale yi dañ ko woo ci benn localité mag moom ak yàlla ñoo nekk ñu ne ko euh, gox bii ni yow yaa leen jàppale woon defal leen lii ak li ak laa mu ne baax na ñooñu ne ko léegi benn mbir rek la ñuy xaar pour nga joxe consigne de vote ngir nga def ko benn audio ñu mun ko tas ci gox boobu yépp te candidat bu ñu am foofu noonu moom moo nar a gañe gox mu ne leen su dee loolu la ñuy xaar ci man kon candidat boobu narul gagné même su bokkee ci ñoom ndaxte bi may jël teranga di ko defal gox boobu noonu ce n'était pas dans le cadre de la politique dama ko def te yàlla rek tax il fait du bien pour jàppale nit ñi dans le social le fait en toute discrétion c'est un humain nit la euh, xam naa am na fu ñu xawee bokk tuuti jikko mooy su tëjoo kenn ku gaaw a jooy la aussi te loolu day wane ni que nit ki xol bu rafet la am Euh, même li may def ni yëgu ko pour vous dire un tout petit peu que vraiment ñun fii euh, dans cette grande coalition taxawaay bu leader yëpp am dafa di taxawaay boo xamante ni ñun ñëpp a bëgg jëriñ suñu réew je pouvais le faire au niveau de la permanence nationale je pouvais le faire au niveau de mon propre siège mais je me suis dit que tey il était temps vraiment ñu mën a génn euh, message bi li ma ci gënoon soxla man ci plutôt mooy waxtaan ak askan bi ngir mën a yee aussi ndaw ñi ñu bàyyante yenn yenn kaddu yu ñaaw yi yenn jëf yu ñaaw yi yu ñuy adressé souvent ci yenn personnalité yi bu loolu weesoo aussi mooy ñaanal vraiment ñun coalition bu ñu am ci ci ñaan jooju aussi ma yaatal ko ñaanal opposition bi yëpp ngir yàlla defal leen jàmm ñaanal aussi njiitu réew mi même suñu bokkul camp ni jéego yu mu commencé dox ni jamono jii nii

mais moom boo nekk sa base ay échec élection ah, avant élection présidentielle yi kañ mën naa wax ci élection législative yi euh, xam nga loolu waxuma la erreur sax waaye loolu euh, moom day faral di wax apprenti politicien la. waaye loolu man suma bàyyi bopp ndem si yàlla jibalay ci kaa doon na ko wax yàlla na ko yàlla xari àjjana suñ ko ne woon sa base mooy Thiargny wala Linguère danaan déedéet man suma base senegal la tey donc président Bougane euh, base basam mooy les quarante six départements li ma ko ci yokkal léegi mooy ak la diaspora waaw pour vous dire am tout petit peu cofeel bi mu am ci réew mi souvent dañuy dem ci benn dëkk ga gis nit ñi suñuy départ ak suñu convoi ñëppay ñëwaat tëb ci kawam ñaata turandoo la fi am ñaata nit lañ ko tuddee tey ci réew mi ñoo xamante ni sax xamu leen ngir cofeel rek mu am ci moom parce que nag il faut aussi ñuy différencier Bougane casquette am en tant que PDG d'une structure boo xamante ni structure privée la ak Bougane boo xamante ni acteur politique la bëgg aussi jëriñ réewam waaye ci loolu yëpp encore une fois de plus daal ñun lu ñu gën a tax a jóg te dina ci dellu si waat ci fan yi mooy gërëm képp koo xamante ni nekkoon nga ci liste yi jël nañ la investir nañ la pare woon nga pour dem xeex nga nekk conseil municipal wala nga nekk sur la liste au niveau de la présidence du conseil départemental wala nga nekk simple élu gërëm nañ leen sant nañ leen te moom it ci ay fan yu néew dina dellu si waat ci kàddu yooyu yëpp incha allah. est-ce que loolu nekk na loo xamante ni euh, bett na leen wala déception la parce que vous attendez à mieux que ça wala deuxième question bi mooy ñu ngi comme ñu ngi dem ci législative euh, te seen coalition bi euh, def na résultat yi probable est-ce que vous pensez que il est fort probable que coalition bi ngeen maintenir ko noonu malgré diversité yi fa nekkoon ak circonstances yi taxoon ngeen ànd ci ci ci local yi parce que bu ñu jëlee yenn exemple yi gis nañ de circonstance la woon mu dem ba euh, législative la première question. xam nga pël laa nag pël bu añul ba heure moom day fàtte lu bëri. mooy euh, seen seen seen seen place parce que il semble que euh, d'après résultat yi génn. Mhm. que politique bu ñu résultat est-ce que loolu déception la ci wala loo xamante ni vous dites bon on on a fait un grand pas. wala loo waaw xam nga eh, ñun au sortir des élections comme li ma wax ni lii mooy suñu première participation wax naa ko tout à l'heure pour le département de Dakar ñun ñooy la troisième force politique pour la région de Dakar ñun ñooy la troisième force politique et tout le monde sait que Dakar c'est le Sénégal en miniature donc yàlla dimbali nañu tey les deux cent dix mille voix yu ñu am ci réew mi dañ koy santé sénégalais président Bougane Gueye Dany dina ci dellu siwaat waaye dañ ciy sant képp koo xamante ni jóg nga am nga yéene taxaw jog jàppale la grande coalition gëm sa bopp donc ci kàddu yooyu noonu amuñ lu dul tànkub sant ab gërëm ndaxte li ñu am ni wax dëgg na yàlla sant yàlla rek la ak it root comme on dit en politique il faut savoir additionner ñu ngi jëm ci ay élection d'ici six mois ci yàlla ànde te xam naa ni euh, ñi ngi ciy liggéey ak représentant yu ñu am fépp ci Sénégal ak ñu nekk ci bitim réew ngir ñu gën a yokk taxawaay bi yokk dëgërlaay bi ngir it élection yi ñu jëm ñu mën a obtenir un score honorable am pourquoi pas une majorité confortable à l'Assemblée nationale et qui sait même en ce moment là ñu nag waa ji ñoo nar a bokk ñooy nar a bokk it cohabitation gouvernementale boobu temps ñun ñoo nar a le premier ministre dans le gouvernement aussi en ce moment là ñun ñoo nar a tànn bien sûr euh, comme lu ñuy wax rek de souveraineté parce que en ce moment lépp lu ñu def day nekk sur la table te it man la ak it euh, sumay nit ak yeneen leader yu nekk ci coalition bi yëpp dinañ ci liggéey suñu kéemtalaay kattan ngir président Bougane Gueye Dany su nekkul it président de l'Assemblée nationale su amul it cette majorité bi mu ko yéene ñu am au minimum un groupe parlementaire